mbokk yi secret bi ma fas yéene jox leen tey bëgg naa ngeen bàyyi ko xel te ngeen def ko partager ko pour mën a dimbalee yeneen nit ñi kon ni ma koy faral di waxee ndax bul gis lu baax rek jël ko téeku ko sa bopp man ni ma jëlee xam-xam bi jox leen ko dama ko jëlee feneen jox leen ko ko yéen bu ngeen ko jëlee fexe leen tam ngeen partager ko mu mën a wasaaroo ñëpp mën see jot ku si dekk mën see jëriñu ngeen mën see am yiw Euh, mu nekk secret bu ama am solo si dund bu ñu dund si jamono jii nga xam ne soxorante bi liggéeyante bi defante lu ñaaw li yéene wante lu bon li ak itam am na si ñoo xam ne sax ñeme nañ jug yóbbu la si sëriñ wala sax ñu lay ñu lay móolu si làmmiñ wala ñu lay móolu si bët wala ñu lay ñu lay ñu lay def ay mbir yoo xam ne ñaareel mun na la mun na la baare si sa liggéey mun na la baare si sa wér-gu-yaram mun na la baare indil ay jafe-jafe si sa sëy wala si sa couple wala lu doon kon dañu toll si jamono joo xam ne fagaru moo gën faju bul xaar ba mbir yi mbir yi daal sa kaw nga doog a jug fu nekk nga jug di dem te yi leen di jox nii secret yu am solo la yoo xam ne yomb na te fu ngeen nekk seen kër mën ngeen ko def moo tax ñaare lu si gën a bëri dañuy faral di wàññi sax yenn secret yi xaw a difficile di leen jox yomb yi nga xam ne ku nekk mën na ko defal boppam loolu dinaa si gën a ñëw pour ñi nga xam ne nag dañuy bëgg a seetlu def istixaar seen mbir yaa xam sa mbir bopp nga bëgg a seetlu wala wàllu diggante wala wàllu biddiw ba xam ki ngay bëgganteel seen biddiw ànd na wala déet bu ko defee mën nga ñu woo wala ngeen yoon yu message si whatsapp bi 76 605 63 19 su ko defee dinañ la ko xoolee incha allah kon secret bi yomb na lool li ngay def mooy sa écran gis ngeen li ma bind noonu nga xam ne damaa jël euh, kaasu ndox bi teg ko si kawam beneen feuille bi nga xam ne moo nekk si ndeyjooram foofu bind bi foofu la gën a leere ni nga ko gisee nii nii rek nga koy bindee keef baatu keef boobu ngay bind nga xam ne dañ koo def euh, si case yi nga xam ne neuf la su ko defee nga bind keef si biir case yi soo paree nga tëj ko noonu ni ko gisee nii nga koy bindee si benn feuille moo xam big bleu big rouge big vert wala big feutre loo ko mënti bindee baax na bésu àjjuma nga koy def nga jël sa benn kaasu ndox boo xam ne nag transparent lay nekk kaas comme kaas bii ngeen gis nii comme genre kaas yi lay doon ndax dafa war a feeñ su ko defee soo si defee ndox. nga jël teg ndox bu set sell nga koy def nga jël teg bàyyi ko noonu lu tollu ay fukki minit ba fukki minit ak juróom bu la neexee ne sa biir xel nag mën ngaa ñaan mun ngaa ñaan li nga bëgg ba la neex mën ngaa ñaan ba la neex ngaa ñàkk ñaan nga jël rek teg ko noonu bàyyi ko soo ko bàyyee noonu ba benn diir bu ko defee nga jël kaas bi naan incha allah moo xam booy naan nga ñaanaale moo xam nga ñàkk ñaan en tout cas mun naa nekk sa biir biir xol nga yéene. soo ko defee bu soobee yàlla lii nga koy def weer bu nekk benn yoon weer bu nekk benn yoon da nga defal sa bopp da defal sa waa kër ak sa ay doom ndax lu ama am solo la te maa ngi leen koy déggal ngeen di ko def jàmm rek ngeen am kenn du mën si yéen dara dara dara cat làmmañ bët def def ak nit ko soxor ak lu mu mënti doon te jamono yooyu leen toll nag nit ñi moom ñeme nañ lu ne ñeme nañ lu nekk kon lii def ko mu nekk sa arm nga di ko di ko fonk di ko def te itam di ko wasaare pour ñu mën see jot. kon na mu ngi doon tey lii laa leen indi loon di ñaan yàlla dafa ñu jàmm ak ñu sàmm ñu di leen jox di daje suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu